الأشرفان والأكملان والأتمان على نقطة دائرة المجد والشرف طلعة الحق بالحق صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة سيدنا ومولانا محمد قرة أعيننا ونور أبصارنا وبصائرنا وآل بيته وأصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضا الله الخالد عن تاج العارفين وإمام المقربين مولانا وشيخنا أبي العباس أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه ورضا الله الخالد عن تاج العارفين وإمام المقربين مولانا وشيخنا أبي العباس أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه وعن آل بيته وخلفائه ومقدميه وأخص بالذكر منهم الفقيه الصوفي والصوفي الفقيه مولانا وشيخنا الشيخ الحاج مالك عليه رضا العزيز المالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبقي نيجي عندك سنة بوب عندك يل ci bis bu barkeel bii nga xam ne lew na yàlla domm ni bis yépp lewe yàlla soob na yàlla bis bu nekk ba yàlla bindee àdduna ba keroog àddunay tukki bis bu nekk ndabal jabono la la ca yàllay sotti nag moom rek moo ko xam soob na yàlla bis bi mbokk yu tedd yi bokk fi daje bàyyi ko fu nekk te ñoom ñëpp li leen tax a ñëw moo di wut si ngërëmal yàlla yàlla nañ ko yàlla boole defal am na loolu nag ku ko bëgg danga koy sàkku ci yar ak teggin ak dal ak xorma ndax ku fi ñëw danga xam ne li fi daje ci ay nit ñépp di njabootu suñu borom subhanahu wa taala caaxaan yëkkatiwu leen ngërëm li ñuy sàkku nag te ci suñu boroom lañ koy sàkku la koy may nit moo di barab yu mel nii boo fi ñëwee nga ànd ak xorma ànd ak teggin deg na ci làmmiñu mawlana cheikh alxaaji abdul aziz radiyallahu anhu mu ne magam ju tedd ja di mawlana cheikh abou bakr si radiyallahu anhu dana wax ne ku ñëw ti tiwaawan ca jamono boba fekk ma fi mak samay rak danañ la dalal danañ la jox sa cër ku fi ñëw fekkuloo ma fi fekkuloo fi samay rakk demal ba ci rawdu bu tedd bale Cheikh Al Hadj tëdd nga ziyaara def sa ñaan ku fi ñëw yàlla dogal mënuloo ak ko koñ jàkk fexeel ba sumbi say dàll teg ko ci suufu tiwaawan loo fi ñaan yàlla yàlla mën na la ko nangul loolu nag بلغي مبكي جوغ في وما كان عطاء ربك محظورا ما يلا دودوك موك لغي لا خيو رك وايي ماكني سوني مسانا نيو دوغ سخار دي زيار سي مام شيخ الحاج مالك اك نجابوتام با اك سيتوا وان بون مسانا اك سيتي غار بي با واتي سي سخار دوتو ني سومي دوتو ني سول دال با كيرو ني غيرنا تيوا ndax war maal maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu amna kuñ may netti ci muqaddam yi ko xamne ki neena nee na su masaana ñëw ziar ci gor gi bam dalal ko ba nopi bu deme ba soxla boppam bëgg a da fay génn koñ jak ndax neena barab bu Cheikh El Hadj Malick si tëdd radiyallahu anhu du fa tuur ndox ndax war ma mbokk yi ndax loolu mi ngi ci ñun bari na kuy sonn di defe effort la ngay yóotu jotuloo ko te fekk yaa war a seetaat sa bopp seet ndax ni nga war a mel mel nga ko ni nga war a ñëwee ñëwee nga ko ndax bari na ku ñëw jëmm jëm moo ñëw mais xol ba ñëwul mbokk yi ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak ziyaara di ko jëme ci borom bis bi mu lew ko dom mu tok fi toogaayu mag ñi yal na yag ta ànd ak wér ba ay yenem ay nalam lépp mu mot liko muy mawlaana cheikh abou bakr mohammed al mansour khalif général de tijan di nuyu rakam di soppeem di léppam di mawlaana cheikh al alxaaj malik abdul aziz yalla yàlla guddal fanam mu yàgg ak magam ñu yàgg a teewe ñu yàgg a taxawu xadara bi ba liñ ci yéene yépp ñu mottali ko wuutu ci seen mag yu baax yi nga xam ne ñoo fi jógee bu yàggul wuutu fi seen wayjur yu baax yi waaye wuutu fi maam Cheikh Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu mi nga xam ne nag ca dëgg-dëgg mooy njaag njaag di nuyu seen rakk Serigne Babacar Abdoul Aziz mi nga xam ne moo yore daara ji ci ndigalal way juram bi mu demee itam magam yépp fedd liku ko te maam Cheikh Al li mu am yépp li ci gën a ràññeeku mooy daara daana wax ne nit ñi liñ bëgg du ko def sama jukki bi lañ bëgg ma teg ko ci suuf te su ma ko defee li ma liggéeyoon ci wàllu yàlla lépp dana yàqu kon sëriñ Babacar ñu ngi koy nuyu di nuyu seen rakk seen soppe di soppeb ñëpp di Mawlana Cheikh Mouhamadul Mansour Abdoul Aziz Al Dabbaax yàlla na yàgg a wuutu ay magam te ñu bokk fi nekk nuyu fa bi mam Cheikh Al malik Malick te mam Cheikh Al Hadj ku ko tudd da nga tudd Jolof danga nga tudd Waalo. ndax góor gi daana wax ne maam Cheikh Xaaji Malick ci misaal bu doon njanaaw njanaaw dafay baaxoo am ñaari côté benn bi jolof la benn bi waalo la ñépp a ngi fi teew nuyoo yooyu yëpp ñu ngi koy teg ci loxo sëriñ Mouhamadul Mansour mi fi teewal xalifa bi te incha allahu bu jëlee kàddu dana ci agsi waaye itam mënuma ñàkk ba ñu nuyu sëriñ maam Alpha Mayoro Sy waaw Mame Alpha ma yoro li xaaji Ahmad Wele sa wax sànq Mame Alpha ku baax la Mame Alpha ku baax la ku yaatu la ku mën a yaatal la léegi dama koy wax na ko maam yow de <coughs> yal na la yàlla may wërsëg wu yaatu ndax loo am yaa ngi koy bokk jàmm yàlla yi ñun ñi dëkk ak moom fii ci Tiwaawan xam nañ ci dara ñun ñi dëkk ak moom ca dakaar xam nañ ci dara ñun ñuy ànd ak moom itam di dem bitim réew xam nañ ci dara waaye sa taxawaay ci biir waalo maam yal na la ko yàlla fay nga wuutu ci xalifa bi wuutu ci sëriñ Maodo wuutu ci sa mag yépp wuutu ci say rakk wuutu ci sa doom yépp ak sa jarbaat yépp ak lépp lu maam booy jaboote yal na yàgg si duma ñàkk bañ a nuyu <coughs> maa ngi jégg lu baax a baax soxna umul xayri si moom mi nga xam ne tey responsabilité bu rëy bii te moo di jiite fondation soxna su tedd bu yàlla gërëm ay jëfam moom la yàlla teg ci bopp bi yàlla day yàgg si li nga war a njëkk a sant yàlla nag moo di ne sa mbokk yu baax yi nga am yépp di sa njabootu maam Cheikh Seyd El Hadj Malick ñii di sa ay maam ñii di sa ay bàjjan ñii di sa ay tante ñii di sa ay nijaay ñii di sa ay baay ñoom ñëpp wuyu si nañu woote bi yal na yàlla fay leen maa ngi jàkkaarloog sa maam soxna Umu Kalsum si bu sa maam Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib ak seena fa tabarakallah maa ngi jàkkaarloog soxna Zeynabu si bu sa maam Serigne Babacar Abdoul Aziz. sa tante soxna umul xayri si bu cheikh alxaaji malik maodo fa tabarakallahu teel na ñëw moom itam mi ngi fi ak ñëpp rek soxna maam pharmacie ñëpp a ngi fi Pape Abdou Mbaye tuddoon na leen xëy na kon duma ci dellu siwaat maa ngi nuyu itam sa borom kër di sëriñ Cheikh Omar Kane mi nga xam ne épargne wul benn effort pour jàppale la ci mission bu sell bi yàlla teg ci sa kaw di nuyu sa nijaay yépp nag macha allah tàmbale ko ci sëriñ Cheikh Tidiane si di xalifa borom daara ji ak i rakkam sëriñ Mouhamadul Habib si sëriñ Mam malik ak papa abdul Aziz ma nekk ca xombal ak sa tante yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu mboolem membre fondation Mame Fawade Wele radiyallahu anha mbokk yi maa ngi leen di wax yéen ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. madinatu waawan di dëkku maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu am na mbégte mu rëy tey yàgg naa bépp waaye mbégteem yokk na tey ci teeru leen ci suufu Tiwaawan ci ngelawu Tiwaawan ci ëttu Tiwaawan ci koñ jàkk ak li mu ëmb. ci góoru yàlla yi fi tëdd commencé ci maam cheikh alxaaji malik radiallahu anhu njabootam ku tedd gi cheikhul xalifa cheikh alxaaji mouhamadul mansour cheikh alxaaji abdul aziz cheikh alxaaji mouhamadul habib ak seeni doom ak mag ñu baax ña tëdd ca baqia waaw ca baqiul xarqat tabaarakallahu du ñu ñàkk ba ñu tudd suñu sëriñ suñu soppe sëriñ mawlaay عبد العزيز بشيخ الحاج محمد الحبيب سي ممتم تلنا نيو لما سيدة چي سرين الف ممتم مم لاي سيدة چي مام دي نتكو سوسيابل تبارك الله يالنا يالا فايلين ين نيب ينجا جاگا ووتو سيني مك اك سيني كليفة مبولم فنit مانا بايو كوم بقوي تبقو چي فونداسيو مام فاواد ñi ngi lay nuyu di la ñu nekk fii ak ñu nekk bitim réew ñu nekk bitim réew duma leen ñàkk a mën bañ a tudd <clears throat> ndax am na ci dëkk yoo xam ne wuutu naa fa soxna asi demal ko fa ay yoon ci kaadaru fondation Mame Fawade Wellé muy itali muy Espagne dëkk bu ñuy wax saragos section fondasio, fondation mam fa wad ma nga fa bu yatu soxna awa ñang jité ko bion bi may mujjé bi may mujjé dem yalla di ñew ak ay mbirum <coughs> dama déparé fi né damay jaar teungeej damay jaar pikine taggu soxna si bima démé <coughs> soxna ndaxte sar la fa fek mané ko dama bëggona gis soxna si ndax dama wara dem espagne mu ne ma yàlla dafa dogal yaramam dafa sutaate ma ne ko kon bu jógee nga ne ko na ma ñaanal maa ngi dem ci liggéey bi bi ma àggee ñaari fan laa fa def walla ñetti fan <coughs> am benn mbokk bu fa génn àdduna muy mbokkum jolof jolof ma ànd ak Serigne Cheikh Tidiane Sarr bu soxna Safiyatu Sarr bu Cheikhul Xalifa radiyallahu anhu <coughs> moom mi fa nekkal kër gi ñu dem ci dëj boobu taxawu ko ba noppi bi ñuy génn sëriñ Cheikh ne ma am na lu xew ma ne ko ba jàmm mu ne ma soxna assi lañu tàgge léegi ne yàlla ñëw na ay mbiram wuy jina boroomam ma ne ko loolu moo soob yàlla doomu aadama dundam ay jéego rek la ku say jéego mat nga dem mashaynaaha xutan kutibat alayna wa man kutibat alayhi xutan mashaha mbokk yi ñun ñëpp ay jéego lañu am ku say jéego mat rek nga dem wuy ji sa boroom yàlla na yéex ñu ñaanal ko wàccal ko ay kaamil macha allah taxawu ko foofu taxawaay bu rafet kon mbokk yooyu nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di indi yu am na yoon boo xam ne maag xaaji Birane si ñoo fa bokk daje mu bàyyi ko ba Italie ñu ñëw saragos am na ci yoon boo xam ne Italie soxna umm mi moo ñu yebal fekk mu waroon a ñëw <coughs> man maa ngi Paris mu wax biraan ne ko waxal ma maxtaar ne ko na ma dimbale rek demal ma ca daje ba fa tabaarakallaahu yooyu yëpp suñ ko dee nettali mbokk yi pour war rek ne leen fondation bi am na cëslaay bu dëgër fii ni mu ko amee itam ci bitim réew mbokk yi ñun ñëpp bokk nañu nangu ne premier nuwaayu boo xam ne mooy tax penc jag mooy tax société jag mooy jigéen moo xam yaay la moo xam tante la moo xam bàjjan la moo xam sœur la waaye jigéen soob na yàlla mooy premier noyau li qiyaami ay mujtamain min al mujtamaat al bashariya amul benn société humaine bu mën a taxaw te jigéen ju baax nekku fa fal maratu laha فالمراه لها دور كبير جيجن امنا رول بو ماك بو دوم يار دوم نامبال دوم تيتي دوم باكروك مو خامي euh موتاخ جيجن دانيي واخ نان نيو دولي ميمن مان غيس نيو دولي غور مو نيو دولي نخ نياري ندوخ ييغا خامني موم لا يالا دي بوله نيت دي تي سوسو فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يالا نينا من ماي بولي بين ماء الرجل وماء المراه ندخوم كو غور اك ندخوم كو جيجين ما بول لين نيوم نياار ندخوم كو غور يالا مين كو دنت تي نديغلي ندخوم كو جيجين يالا مين كو دنت تي دن مودي الترائب موم لا نيي واخ دندي بات yàlla nee na maa leen di boole ñoom ñaar doom ci lay sosoo moo tax ku góor am na responsabilité foofu na fexe ba li muy lekk ba ndox moomu di ci sosu na fexe ba loola nekk lu lew ba bu ëllëgee bis bu koy sotti ci ruxumu jigéen boo xam ne lew na ko doom mu nekk lu lew ndax doom ji ci mën a juddu ëllëg nekk doom ju baax mbokk yi doom ju baax dañ koy waajal doom ju baax dañu koy préparer avant sëy di am bu sëy amee gën a fedd li ko ba keroog ñu lay jox sa soxna ngay joteeg moom war ngaa teew lu jëm yàlla ak ñaan yi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam daana ko ñaan mag ju baax ñi daanañ ko ñaan pour bu ëllëgee nga mën a am doom ju baax alayhi salaatu wasalaam joxe na benn ñaan bu gàtt boo xam ne bii ku dem ba bëgg a joteeg sa soxna alayhi salaatu wasalaam nee nag soo ko ñaanee yàlla dana dox sa digganteeg seytaane doom joojo bu juddee itam du nekk mukk faq maan du nekk buuju maan du genzu du naan sàngara du jaay dorog allahuma bismillah allahuma jannibna sheytaana wa jannibi sheytaana ma razaqtana lii may bëgg a def donte danaa ci am bànneex mais mën naa ko def muy jaamu yàlla maa ngi koy defe ci tudd turu yàlla yow sama borom nga dox sama ak shaytané mak sama soxna si dom ji ci nara juddo ëlëk yàlla na nga ko mussal ci seytaane mam cheikh alxaaji malik radiyallahu anhu dana ci bolé allahumma rzuqna minha waladan salihan تقيا نقيا barran ليس في خلقه ziyadatun ولا نقصان يو يالا sama سخنا سي may àndal بو ci doom juddoo na nekk doom ju baax doom ju ragal yàlla doom ju yiw doom joo ben ciir du manqué ci mom du nek dom ju ëpp nit nit nga ci bir nit ñi ëppal ci wax ëppal ci jëf ëppal ci xoolin ëppal ci lekkin ëppal ci toggin yàlla nañ ci yàlla bolé musal laysa fi khalqihi ziyadatun wala nuqsan mam Cheikh Alhaj Mari danako bolé ci ay ñaanam pour mëna am njabot gu bax motax jigen mbokk yi amna responsabilité bu reuy ci jur dom mel ni mu war a mel te danañ ci ñëw ci kanam suñuy waxtaan ci Mame Fawade incha allah qualité yi yàlla defoon ci moom ba yàlla may ko lim ko may nekkul loo xam ne bii wax bii la mais kas bii la am na ci mbir yoo xam ne yàlla moo koy may nit du ko sonne mais am na ci lool yàlla daf lay bàyyi nga sonn waaw boole kook ñaan boole kook sabablu yàlla teg ko ci sa loxo mbokk yi bu ñu delloo ci at taarix al islaami danañu fekk ne <clears throat> am na jigéen ñu baax xëy na waxtu wi moo ko dul maye mënoon naa ko tàmbalee ci suñu maam Saara wàcc wàcc wàcc waaye ngeen baal ma ki ñu gën a jege ma mën ko tudd mu di suñu yaay soxna Xadiija bintu Xuwaylit nekkoon soxna Seydina Muhammad aleyhi salaatu wa salaam surtout Xadiija <clears throat> jigéen la woon dekk ci biir mag yàlla sooboon na ni sëriñ Ahmed Wele wax léegi am na ñaar ñu ko dëkkoo woon yàlla weddi yàlla def ko muy jigéen ju am personnalité ci biir mag jigéen joo xam ne góor du ko romb mukk di tàpp gannaawam ndax am na góor ñu yiwati waaw góor guy xool fuddalu jabaru jàmbur walla ngay bannamtiku parfum wu jabaru jàmbur tu n'es pas sérieux góor guy fóotloo jabaru jàmbur walla nga koy toggloo tu n'es pas sérieux suñu yaay nekk ci biir penc mi nekk une grande dame

nu mu ko waxeeti sababu baax na baax na jërëjëf damay bañ mu damay bañ mu gudd kon donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko soxna si di njëkk a gis mu ngi am fukki at ak ñaar fekk si soxna Xadija mi ngi taxaw ak benn yahuud yi naka la Seydina Muhammad romb rek alayhi salaatu wasalaam yahuud yi seen téere yi jàng nañ ci màndarga yi nga xam ne ku mu dajee ci yow yow mooy yaay yónent bi yàlla mujje yónni yaay xaatamu nabiina wal mursalin naka la Seydina Muhammad romb rek yahuud yi bi ne ko xale bii kan la mu ne ko kii mooy Muhammad ibnu Abdillah mu ne nañ ma ko wool sang bi ku ko masa woo mu wuyu si la mu ñëw yahudi bi di def effort ba yëkkati yére yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mbagg mi ndax am lu mu doon xool mooy tampon bi naka la ko gis soxna Xadija ne ko yow looy def ni xale bi xanaa xamoo ne kii borom cër la nangam ak nangam mu ne ko defuma ko pour foye ko dafa am lu ma doon seet te gis naa ko yonent bi yàlla mujj kii kii mbiram dana ñëw ëllëg yonent bi ñu doon xaar ñu xam ay màndargaam ci kii la ko yàlla def joxañu soxna Xadija ne ko yaa ko mag fuuf waaye fexeel ba bum la rëcc bis boo amee wax jot walla temps may la ko wala lu mën a doon na nga fexe ba mu nekk sa boroom kër ëllëg fofu la mbir mi tambulé soxna khadija diko ko bàyyi xel diko ko bàyyi xel diko ko bàyyi xel bekkero mo yonne ci mom yàlla di len bolé fa tabarakallah ci bir néegu sëy soko topé da fay gudd ana sunu yaay ummu salamata ana sunu yaay aisha ana sunu yaay hafsa bint umar ana soxna zainab di doomu sayyidina ali ñukoy tudde zainab al kubra nga wàcc di wàcc ba ci kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo ngànk ngir yi jigéen ñu baax ñoo leen jur yu leen taxaw woon dama leen di citer rek rapidement man naa ci tudd yaayu imam malik man naa ci tudd yaayu imam shafii fa tabarakallahu nekkoon jigéen ñu baax ay grande dame yu xam seen bopp am dignité ma sha allah wal qaimatu tawilatun jiddan wa hunaka namadiju mushrifa wa musharrifa min ummahatin wa jaddatin كن ذلك النبع المعطاء فكان أولادهن ثمار غرسهن جيجين يباخ نيو نيو فتبارك الله منس نلن تدو تاريخ نيب دي لن بيجي نيو نساء خالدات ورائدات نك نيو اترنل نك نيو سخد أي كلفة تركنا بصمات واضحة في الكفاح والنضال والإباء والعفة والطهارة والتربية والتزكية ñu nekk jigéen ñoo xam ne yàgg nañoo mën ay combat góor mënalul mënu leen ci bañ ak fegu ak maandu suñ ñëwee ba ci suñu réew mi mbokk yi ana yaayu mam cheikh alxaaji omar al fouti radiallahu taala anhu soxna ko de adama aïcha ana yaayu مام الحاج عبد الله نيس انا ياي مام شيخ الخديم انا ياي ماك ني باخ ني في نيك نيب ما نسنا لينا تود واي مبوكي انا انا انا ياي مام شيخ الحاج مالك رضي الله عنه بروم بس بو تيد بي دي مام فواد ويل ذات المناقب والاخلاق الحميده التواقه الى فعل الخير والبر والاحسان ذات اليد الطولى في العمل الصالح المثمر البناء ذات المواقف الإيجابية والمشاركة في بناء مجتمع إسلامي فاضل نظيف خال من السفاسف والدنائس أنا جيجين جو تد نيوكاي واخ سوخنا فا واد ويلي دي جيجين جو خامني يالا ماي نكو اي تير يو بري yàlla may na ko ay jikko yu tedd nit la koo xam ne bakkanam ci boppam moo bëggoon def lu baax am na ñoo xam ne bëgg nañoo def lu baax waaye dañuy gaaw a siisu def lu baax yombu leen lu baax mbokk yi dafa jafe da ngay tàmbali mu metti ñuy gor say tànk di yëkkati kàddu yu bon di ko teg ci sa kaw nga muñ ba keroog ngay am li nga bëgg عليه الصلاة والسلام لا لقى الله وحده نقدر نمتيل ندعي مند أمنا سبب كيونين تيلي في جارو جار يتوهم لونك دجنك وينك وصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا منيل بس دنا مسني ومنخ سني من فواد متي ون بابا كتير خبنا نجمونا دم يقولني li am ci ay moyens pour dund dund gu neex ventilateur amul climatiseur amul électricité amul bi ne amul jigéen ñi li ñu xam mooy bay ak rooti ak dëbb ak togg loolu tey ku ko bëggoon a def loo euh, far say aadi wala nga bëgg ko def loo daba jóob wala umu njaay duñ ko def waye bobu lolou moy li amone fa tabarakallahu mu nek jigen jo xamne item modi ba mi mel nim wara mel ci mbax mu gabo wan ginnaaw aduna, wan aduna nak waxu ñu kenn nga tok di lek ay xeer wala nga teud baña wala nga sol ay sagar dedet da ngay mel ni nga wara mel ba nopi wan àdduna gannaaw wan àdduna gannaaw mooy lépp lu yàlla bañ ngor bañ ko nga teg ko ni tege lépp lu yàlla bëgg ngor bëgg ko mu jaral la sa bakkan soxna mam fa wadd noonu la meloon teena bàyyi xel yàlla bi qalbiha wa qaalabiha bi jasadiha wa ruuxiha la béyk waaw ومنصور من ني فاتل بنين آية بو يالا مين كي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية ولا تعد عيناك عنهم يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا بآية بجيخ ما شاء الله yàlla wax na alayhi salaatu wasalaam ne ko na nga muñ sa saxaaba yi la topp am na ci ñoo xam ne amuñu dara amuñu kër amuñu fu ñu dëkk amuñu dépense amuñu lu ñu lekk mën naa am sax dana ñëw nga bëgg a noppalu te duñu bëgg a dem ndax sopp la ngir bëgg la jotaay boobu metti na la ca nekk ci ay benk ñenk ñenke metti na waaye na nga muñ ànd ak ñoom ndax seen bëgg-bëgg yépp mooy dañoo bëgg àgg ci yàlla yàlla rek lañ dëkk moom lañu àndeek yow seen suba seen ngont seen lépp yàlla rek la bul topp nag koo xam ne yàlla man yàlla maa kaste xolam bëggul yàlla mission bi nga xam ne moom laa la dénk bu sañoon sax daf koy gàllankoor suñu maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ba mu nekkee njaar ne dégg naa ci làmmiñu góor gi mu ne mas na woo njaboot gi ba ñu toog mu ne leen na ngeen def ndànk am na ñu nekk ci kër gi ci njarnde suñu noddee ñu ñëw ci jàkka ji yenn saa yi ñooy nodd bu ñuy jàng kaamil bi ñu ngi ànd ak ñun su may tëral bind ñu ngi ànd ak ñun kenn ëpp leen xam-xam mais maa ngi leen di xamal ne du ñu ay taalube ay agent lañu yoo xam ne tubaab yi ñoo leen fi yebal seen itte yëpp mooy xam lan laa toogee njaar ne ñuy def ay rapport di ko yónnee bureau politique ca Ndar Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ne nii ma leen xame noonu laa xame seeni tur mais ngor mayuma ma tudd leen kon mbokk yi lu metti yàgg na fi alayhi salaatu wasalaam ci la tàmbulee ma fa wadd wele ma wax ne dafa teel a jublu yàlla ci xolam ak jëmmam ak yaramam mu xam ne liggéeyal yàlla nit ki mën na koo def ci ay volets yu bari mu jël boppam may ko daara ji bëgg xam-xam bëgg boroom xam-xam yi bëgg góoru yàlla gu baax xam nga léegi tey man mii su ma jógoon di wuti soxla ma bëgg labat am na kër yoo xam ne ñemewuma koo fëgg ndax daf may wóor ne lay dundal kër ga man awma ko su ma fëggoon kenn duma ubbil su ma ñaanoon kenn du ma may ndax alal moom lañuy ñuy pour nga mën a dugg ca kër googa soo ko amul doo dugg am na ñoo xam ne boo ñëwee li ñu lay njëkk laaj mooy loo am looy liggéey sa du ñaata la sa salaire ñaata la ñaata kër nga am sa compte bancaire nangam ak nangam loolu lañuy ñuy njëkk a calculer soo ko amul ñu ne demal nga seeti beneen buntu kër. mais mag ñu baax ñi nag ñoom seetuñu woon loolu dañ doon wut yàlla waaw maam fa wàdd foofu la ko yàlla boole moom da doon xam-xam la doon wut seet ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di dundal xam-xam yore ay daara di jàngal ay xare xalafi alquran maam fa wàdd ñooñu ñu la jëloon fat leen nekk seen yaayu daara itam waxuma la sëriñ say jàngale lam leen di defal ci ay xeeti teraanga waaye taalibe yu nekk ci biir kër gi mam fa wadd moo nekkoon seen yaayu daara mooy fóot mam mooy togg yamu ca ngir yërëm ay borom këram yu ko yàlla boole loon ak bëgg leen a jàppale ci mission bi ruus naa toog di laaj boroom këram lu mu def ci kër gi mu ne loolu nag pour ma mën koo réussir dëgg dëgg dëgg moo di damay fexe ba am liggéey te alayhi salaatu wasalaam nee na liggéeyu jigéen bi ci ëpp ëpp ci barke mooy jigéen juy ëcc xam ngeen ëcc waaw di rabbu ay yére di ko defar di jaay di ci jàppale sa boroom kër nee na jigéen mecc yi muy def yépp bi ci ëpp barke mooy loolu moom foo daf ko daan def bu ñaareel bi dafa yore woon ay mbàndam di suub ëcc boobu sax ci la ko yàlla baaxe bu bunt bi ko yàlla ubbil ci bam Cheikh Alxaaji Omar al Fuuti radiallahu anhu ba mu koy jàppale ca jihaad ja mu doon def di xeex ak noonu lislaam sër ba mu ko jox ci liggéey boobu la bàyyi ko mbokk yi lu baax dañ koy sàkku waaw maa ngi baalu xaq soxna yu tedd yi bugguma wax mu mel ni damay dugg ci seeni 18 waaye jigéen ñi ma gis léegi ni ñuy sëyee pour ñu am barke du leen yomb bu fekkente ne bii mag ñi ni ñu doon sëyee moo leen may li ñu am soxna yi ma gis tey nii ñuy sëyee ci seen biir kër yi buñ ko soppiwul mën nañoo am njaboot de <coughs> mais duñu duñ gaaw a am barke mam fa wadd radiyallahu anha nekk jigéen ju fegu nekk jigéen ju laab nekk jigéen ju xam boppam téye boppam bokk na ci sikkas jigéen jigéen ju mën a dox jigéen ju dul toog bokk na ci sikkas jigéen Jigen ju dang làmmiñ <laughs> pa Mansour mom xamna ni jigen yi la faral même pa Mansour man mi jigen yi la faral de yalla xam nako jigen yi la faral dama bëgg rek li mam fa wad amone suñu soxna yu tedd yi am ko ñoom itam ndax jombu len nak jombu len gor gu bax gu soti jigen na taxaw jigen la su sukk jur la Pape Mansour sikkal góor bari na ca góor gu nay góor goo xam ne <coughs> waxoon naa ko ci gàmmu gi 2000 francs ngay joxe dépense ba noppi bëgg ci poojo ganaar bëgg ci ceebu jën bëgg ci jus bëgg ci attaaya ba noppi boole koog naqari deret waaw Pape dafa am benn waay bu jël soxnaam jox ko 2000 francs ne ko dama bëgg nga toggal ma ceebu jëm pend mbay bu fatt taraj waa ji doxi soxlaam ba ñëw soxna si pànk ba mel ne farsay aadi toggal ko gosi mu ñëw jëkkër ji ne ko ana añ bi mu tegal ko gosi mu ne ko yow danga may fontoo mbéj ma lay toggaloo ceebu jën nga may toggal gosi mu ne ko nijaay 2000 francs mais mënoo ci am sax ceebu jën pend mbay waxantuma laag bu fatt taraj mënu nekk waaye Pape Mansour sikkal góor bi ci gën a yiis mooy góor guy laaj weccit waaw ah Pape Mansour nga baal ma de waaye daal man sama analyse bopp daal mooy góor ñëpp góor gi ci gën a yiis mooy góor guy laaj weccit góor gu baax gu yiw wallaahi du laaj weccit damay fàttaliku sa wayjur wu tedd wa Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu yàlla yàlla taas ñu ci barkeem daana joxe dépense weer

سرين بي نينا 1954 شيخ الحاج بالي سي مودو نينا 1954 نينا بابا ام داف كو وو سي گل تابي سي پومبي نكو دابا لا بڬ يوني سي سا بابا منصور سي مالك شيخ القومي رضي الله عنه مونكو وول سا باي الحاج مباكي سي ma yónni leen yéen ñaar boo demee nga ne sa papa xaaji Mansour sam papa nee na taalibe ngi yalwaan ñaari fan a ngi nii cin tàkkul ci kër gi yaay yaay faat jang demul marché yaay tabara demul marché nee na biñ ñëwee Cees nee na mi ngi fekk cheikhul qawmi cheikh alxaji mansour mi ngi jaaxaan yore téere di jàng foo ko fekk nee na noonu la daan def nee na cheikh alxaji mansour ne ko papa na nga def foo jóge nii mu ne ko Dakar laa jógee sam papa moo ma yónni nee na taalibee ngi yelwaan nee na cheikh alxaji mansour muuñ mu ne ko góor gi nee na ñaari fan a ngi nii kër ga ca gël tàppe cin tàkku fa kenn lekkul ndax booba lu ñu demee marché nekku fa nee na papaam ne ko daw leen ngeen dem julli gaaw léegi te ngeen pare ngeen ñëw dellusi si muy jullik timis nee na bi mu génnee ci jàkka ji jarbaatam bu baax bi ñuy wax alxaaji duut ndaw dab ko ne ko xaaju malik sa papa jox na ma ñaari saako dugub ñaari saako ceeb ak saako dugub nee na nga agsi gis ko radiyallahu anhum jamian nee na bi mu ñëwee nee na papaam ndeysaan génne benn enveloppe cheikh alxaaji Mouhamadul Mansour si malik ne ko boo demee nga jox ko Abdou te nga ne ko nag moom dafa fontu nee na papaam cheikh alxaaji Mansour accent wu ndar la yore woon ne ko boo demee nga ne ko moom dafa may rek waaye lii ma ko jox nag moomu ko kër gee ko moom muy soxna Fat Jeng ak soxna Tabara ma ne ko baax na pàppa dut ndaw itam jox na ma yóbbante yi mu ne ko ndeysaan léegi otoraay ñëw xanaa ñu ñaanal leen ngeen dellu bi ñu agsee ci kër gi Dakar fekk na guddi na ba ñépp tëdd ndax daanaka ñoom dañoo doxe gaar ba bërëb pour mandeel ak bagage yi ñu yore nee na loolu yàgg na boobu oto oto ba melegul nii nee na mu ñëw rek di nee na booba ëtt bi gël tàppe booba ñëpp fa lañu daan fanaan mu ñëw tëdd koom ñëpp ci suuf si rek lañu tëdd nee na quatre heures moins mu dégg ñu koy woo nan Maodo Maodo mu ne labbayka ñu ne ko kaay wuyu sa papa nee na mu ñëw mu ne ko papam ne ko Haj Malik dem ngeen ba ñëw mu ne ko waaw mu ne ko ana sa papa mu ne ko ma fa nee na ñu waxtaan tuuti mu bëgg koo wax mbir mi ni mu demee mu ne ko ana Mbàkke si mu ne ko xanaa mi ngi ci néeg bi man ci ëtt bi laa fanaan mu ne comme que yéen ñaar laa yónni woon woo ko mu teew nee na xoolal seen façon wu yar yooyu nee na mu woo Baay Mbàkke si mu ñëw mu ne ko sam papa xaaji suur jox na la lii jox na la lii jox na la lii ceeb ak dugub enveloppe bi itam nekk enveloppe bu duun xaalis bu bari nekk ci ay kayit yu bees rek moo ci nekk mu ne ko nag sam papa nee na bul ko may kër gee ko moom ak sama yaay Fat Dieng ak sama ak yaay soxna Tabara nee na góor gi ne ko baax na booba waa jekko yi fa la ñu daan wasifa biñ jullee fajar ba julli wasifa ba sottal góor gi ne ko wool ma alxaaji abdullahi mbaay ak alxaaji muhammadul amin ñang mu woo leen ñu ñëw mu ne ko ablaay wutal kayit mu ne ko lamin am nga bindukaay mu ne ko waaw mu dal di commencé bind list nee na ña góor gi doon bind seen tur moom mi ngi fàttali ko ñu bari seen tur ba léegi la mu ca dese nee na wallaahi matul 5000 francs mu ne ko sam papa Mansour nee na woon papa moomuloo ko de mu ne ko waxam jooju moo di كوتي من الدمبلة ننكو دمبلة رضي الله عنهم أجمعين نينا مويلو يمي نينا لولو في لن يطول لكي وقتان ني قال الشيخ الحاج عبد العزيز سي لمو أمتي ولري أكي سوبي دكار بتم جل لين bayiwul xel kenn ku dul serignam magam di soppeem di lépp di borom cieur bu reey ci walu yàlla ñu nan ko cheikhul qawmi ci dund bayam lako ko muhammad Ali wuldu fata tudde cheikhul qawmi ak muhammad yahya booba cheikh alxaaji Malik mi ngi dund yàlla yàlla tass ci sen barke wallaay jërëjëf si Malick sëriñ bi nee na mi ngi ànd ak ñun ci waxtaan wi bu baax a baax nee mi ngi koy déglu bu baax a baax nee mi ngi dellu di ndokkeel sëtam soxna umul xayri si di soppeem di léppi ñépp ci fonk mbokk ak toppatoo nit sur surtout nag dundal li nga xam ne yaayam di soxna asiyatu si daf ko bàyyi ci loxoom muy kóllëre gi mu fas digganteem ak maam mam fa wadd wele muy faatimatu wele jërëjëf si Malick nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp jërëjëf si Malick jërëjëf nee na mi ngi nuyu sëriñ Mansour Abdoul Aziz Dabakh ñoom sëriñ Habib Mouhamadul Mansour ñoom sëriñ Mam Malick nee na jarbaatam doomam sëriñ Cheikh Tidiane Sy bu xalifa bi sëriñ Mouhamadul Mansour mu lay bu papaam Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib nee na bàyyiwul kenn nee na mi ngi nuyu doomam soppeem Ahmada Sy waaw nee na Cheikh Ahmad daa nitu yàlla bu mag la jaamukatu yàlla la tuddukatu yàlla la itam macha allah nee na mi ngi nuyu maamam di rakkam di soppeem di soppe ñëpp di sëriñ maam alfahima yoro wele si jazakumullahu ana xayra nee na mi ngi ziyaara xalifa bi bu baax a baax a baax a baax xalifa bi di suñu mag di suñu sëriñ di suñu kilifa nee na sonn ci waam lool jàngal ko alquran sonn ci yar bi macha allah nee na mi ngi tëbb ci moom di ko bége nee na mi ngi sàkku ci mbooloo mi yëpp ñu bañ ko fàtte ci ñaan jërëjëf si Malick kenn du la fàtte si si jërëjëf. Sénégal bokk yi xanaa ñu jéem a résumé rek comme que waxtu waa ngi guddi eh, suñu maam faa wàdd wele radiyallahu anha mbokk yi nee naa leen environnement bi mu dund environnement bu sain la ñun nag malheureusement environnement yi ñuy dund léegi dafa yi ndax eh, dañoo moomatul suñu bopp booba mag ñi yàlla dimb na leen ñu bàyyi xel seen colin li ñuy sol dafay jot li ñuy sol dafay du yaraax du xat du génne seen jëmm benn mbokk daf ma nettali mu ne ma suñu maam alxaaji rawxaan ngom radiyallahu anhu moo ko nettali ne li muy yàgg yàgg ak maam Cheikh alxaaji Malick nee na xar kanamam mosul teggu ci xar kanam maam Safeetu Ñaŋ su masaana jóge Dakar maam Cheikh Alxaaji Malick yónni ko ci moom suy wax yóbbante bi min war a xijaab sàkket mooy dox seen diggante mu wax li muy wax teg léegi ñun njaboot gi bala ñuy kontaan da ngay ñëw ci kër sëriñ bi ne ko fekk fi sa soxna sax moom a gënal fekk la fi am na ko wax tuug wallaay tuug sa dégg ci làmmiñu marabu nee na Cheikh Alxaaji Malik mas nañ koo laaj fii ne ko si dañoo bëgg a xam lu la neex ak lu la naqari mu ne Malik amul lu ko neex lu dul lu neex yàlla amul lu ko naqari lu dul naqari yàlla waaye bokk na ci li neex Malik mag mu toog ay xale wër ko mu leen di jàngal xarafi alquran su ma mënoon man Malik maa koy gàddu léppam ba yowmal qiyaama waaye bokk na ci man Malik li ma naqari toog fii ci ëtt bi dégg baatu góor ci biir jigéen ñi fekk ma fi ma toog man Malick nga jam ma paaka ci xol may kat di ba sedd moo gën a woyof dégg baatu góor ci biir jigéen ñi mbokk yi suñ environnement yi dafa pollué dafa pollué dañ ko war a gën a sécuriser bu baax a baax a baax ñoom mam fa wadd nag chance bi ñu amoon mooy seen environnement dafa sain woon góor ñi xam nañ seen rôle jigéen ñi xam nañ seen rôle tabarakallahu kenn du ci déborder maam fa wadd cër bi soxna Xadija amoon ci biir Makk moom la maam fa wadd amoon ci biir waalo ñépp waru ko mu bëgg xam-xam bëgg góoru yàlla yi bëgg taalibe yi moo leen di toggal moo leen di fóotal mi ngi ëcc ay yére di rabb fa tabaarakallaahu ndax am lu mu jàppale daara ji bëggul benn taalibe xiif bëggul benn taalibe mar bëggul benn taalibe feebar doo faju bëggul ko tumuraanke bàyyi xelam nag ci góoru yàlla yi nga xam ne ñoom la jamonoon teel macha allah lépp luy taasal lépp luy taasal deru jigéen moom fa wadd daf ko doon moytundu ko mbokk yi jigéen dafa exposé waaw sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ndeysaan da doon def benn litikaaf bi muy def itikaaf ci jàkka ji xeetu jàmm yàlla la bu ñuy def ci fukki fan yu mujj ci weeru koor dañuy wax ne boo koy def da ngay beru sa njaboot kenn ci ay soxnaam di sunu yaay safiyatu bintu xuyey ñëw seetsi ko bi mu demee bay dem sang bi di ko gunge bi mu koy gunge ne tëll yam ci ñaari xale yu bokk ci lan lansaar naka lañ gis sang bi rek ñu bëgg a daw sang bi ne leen ala rislikuma ay tamahala wala tusria bu leen daw ñu ne ko yaa rasulallah lu xew mu ne kii ma taxawal sama soxna la innaha zawjati safiya xam na ne bu leen bàyyee ñu dem danañ yóbbaale xel kan la sang bi taxawaloon te njortu loolu ku ko am ci sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam da ngay alku mu bañ ñu alku bañ ñu yàqule mu ne leen ala rislikuma ay tamahala wala tusria taxaw leen kii ma jàpp ci loxoom téye ko muy génn ma di ko won yoon di ko tettee pour mu génn innaha zawjati safiya sama soxna la mbokk yi maa ngi leen koy ñaan tàmbalee ko ci sama bopp nañu bàyyi góor ñi jigéen ñi joxante loxo ñi ngi koy def dee daganul de seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na nga jël puso jam ko ci sa yaram mu lay jam la muy metti metti moo gën a woyof nga jël sa loxo teg ko ci jigéen joo xam ne bii du sama aram du sa soxna waxuma la nag ñàkk joxe loxo am na ñu koy dépassé ba dañuy accolade loolu yépp bokk na ci tâche yi nga xam ne moo ñu gàllankoor ñun moo tax demuñu fenn mag ñi nag dañ ko bàyyi woon xel ma wax leen benn anecdote bu gàtt maa ngi fàttaliku Cheikh El Hadji Malick mi doon communiqué ak ñun léegi yal na yàlla dolli guddal fanam may ko wér may ko kàttan defal ko xalifa bi ak njaboot yépp dafa am benn bis yaramam xaw a sutaate boobu mi ngi dëkk Point E ñu ànd ak góor gi dem di ko seeti muy jamonoy sedd bi góor gi ñëwee tëdd ci kaw canapé bi mu xaw a liw tuuti mu woo soxna safiya soxnaam ne ko ndax am nga mbàjj soxna safiya indil ko benn mbàjj mu làmb ko ne ko ndax xaaju malik mas na ko sàngoo mu ne ko waaw mu ne ko kon duma ko sàngoo ak li ma koy jur jur yépp ak yee ca topp ak yee ca topp ak yee ca topp mbokk yi bu ñuy jàngat biographie siira daatiya bu mam fa wadd man dama gis ne ñun ñoo war a góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax wara defaru wat wara jogat bu fekkente ne bëgg nañoo jariñu ci hadra bi bu fekkente ne bëgg nañoo jariñu ci kër gi nañu nañu nañu bàyyi xel lu bare bare bare mam fa wad lépp lu daan tachel deru jigen waaw ci taxaw ak gor go warta taxaw waaw am intimité waaw intimité yàlla neena bu fekkente ne bii am na lu ma soof mooy gu am jabar ba nopi séq ak beneen jigéen bu dul jabaram def ko xaritu sekkareem di déeyoog moom loo xam ne di ko déeyoog soxnaam yàlla nee na bokk na ci li ba gën a soof jigéen ju nekk ci biir néegu sëy ba noppi am xaritu secret wala muttaxidi axdaan wala muttaxidaati axdaan alxidmu huwa siddiqu sirri waaw boo xam ne dangay ngay wéet ak moom di jokkonteek moom ay SMS di dugganteeg moom ci Facebook bi di demanteeg moom ci WhatsApp yi di demanteeg moom ci TikTok yi loo xam ne bii doo ko seq ak sa soxna wala yow doo ko seq ak sa jabar yàlla nee na bokk na ci ma gën a soof ci penc mi ñun góor ñi nañu fegu tamaandu alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci li gën a gaaw luy dugal nit safara ëllëg mooy nit ku téyewul làmmiñam téyewul tubayam xamne lolu romb nga fël ëpp naa def soxna yu teddi ma ngi len di ñaan diko jaarale ci seeni dom yu jigen nañu tak ku mbey ba mu deugal góor ñi ma ngi len di ñaan nañu tak tubey yi ba mu deugal buñu ko tekki mukk lu ci kanamu jigéen joo xam ne daf ñoo law mbokk yi njaaloo baxul de wallahi alazim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila neex na ci kaw rek waaw te alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ji nga romb ba gis lu la yéem ci moom ba tax nga bëgg a mooy yàlla ak moom li ci moom mooy li nekk ci soxna si nga bàyyi ci kër gi seytaane moo lay moo lay rafetal rek mam fa wàdd mbokk yi dafa bokk ci lim doon xeex moo di lu mel noonu ci pénc mi te diina lislaam ku ci nekk xam ne dafa aar jigéen daf ko protéger wa maryam abnata imran allati ahsanat farjaha soxna Mariam mi yaayu yontu yàlla Isa li ko yàlla tagg mooy dafa téye woon kurmaam takk ko ba mu dëgër fa nafaxnaa fiihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubihi wa kaanat min alqaanitiin yàlla tagg na jigéen ñu baax ñi ci alquran bu baax a baax nee na jigéen ju feggu la woon jigéen joo xam ne masta mooy yàlla jigéen joo xam ne masta jaxasoo góor moo tax ba jibril ñëwee ne ko sa borom moo ma yónni pour mu may la doom mu ne ko an naa yakunu lii walad walam yem sasni bachar walam aku baxiya man du ma gànc du ma jigéen buy jaay boppam aw ma njëkk aw ma prix bëgg benn góor boo xam ne gi doo sama borom kër nga ñeme maan nuyu waxantuma laak dégg nga di xam lan laa woddoo hind ba muy jaayanteeg sallallahu alayhi wa sallam te boobu mi ngi door a dugg ci lislaam يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا بتي ولا يزنين زن زي هند دفا سيجي خول نكو أو تزني حرة ndax jigen ju bax dana njaalo dana moy yalla suñu yaay amina di yaayu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bi bi muy genn aduna fukki at ak juroom ñett la am سيدنا عبد الله مي باباي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 20 عام لام مي سخنا آمينة مسلم جن كرم بغور دي كتب بد دي كخول طول مي تجو تي بير موتخ ما شاء الله كون بوكي personnalité jigen deug deug nekul ci mu sol num ko nexé genn ci mbedd mi jaxaso gorni sol lu ko neex wax lu ko neex déedéet personnalité jigéen dëgg-dëgg mbokk yi mi ngi ci mu xam mooy kan garde dignitéem du bari wax du bari jàmbat du ñaw làmmiñ du mën a taayaan colom daf koy bàyyi xel bu baax a baax a baax am na benn waay boo xam ne dafa tàggu soxnaam ne ko maa ngi dem te ñëw te booba kër gi dara nekku fi li Cheikh El Hadj gi doon wax léegi mbokk yi lu metti yàgg na ci àdduna bimu mu demee ba teg tànkam ci buntu kër gi soxna si woo ko ne ko nijaay kaay kaay kaay mu ne ko xam naa ne li ngay wuti mooy loo indi pour jox ko njaboot gi waaye maa ngi lay ñaan nijaay fexel ba bul fi indi lu lewul man nañoo muñ xiif mais mënuñoo muñ ëllëg metul safara xam nga ni kooku jigéen ju tedd la jigéen ju baax la suñu mam faa wadd kon mbokk yi darabatil mathal al aala

ñi nga xam ne dañoo tasaaroo woon ñu fexe ba dajale leen ku ci nekk loo am indi ñu dajale ko ba bu ëllëgee ku feebar ñu mën la faj soxna Asi ku ci nekk xam na li mu daj nelawul guddi nelawul bëccëg am na ci ñoo xam ne bii man xam naa leen daan nañ jógee bitim réew wara di ñëw senegal soxna Asi bu ko yëgee mooy yebal ay otoom ñu dem teeru leen aéroport yóbbu leen ba seen kër. ku ci feebar moo lay faj am na ci ñoo xam ne moo leen yóbbu màkk am na ñoo xam ne seeni sëy yëngatu woon na moo ci taxaw ba mu defaru extra extra extra kon suñu maam Fawad radiyallahu anha bi ko yàlla mayee ñaari sëriñ yàlla weddi mu ne pare naa ci sëy waaye li muy pare pare ci sëy parewul ci yàlla te mbokk yi ku parewul ci yàlla sa lépp dana dox mu gën a takku ci daara ji ci bindu xale yi jàppale càmmiñam ma fa ma ma alfahima yoro jàppale mag ñu baax ñi nekkoon ci biir dëkk ba ba yàlla baaxe ko yàlla baaxe ko yàlla baaxe ko ba bëtam tegu ci jëmm ju ñuy wax suñu maam Ousmane si maam Ousmane di way juru maam cheikh hadji malik radiyallahu anhu ñëw am lu mu doon wut si am na ñuy wax ihmirar ne moko taxona taxoon a jóg waaye man téré bi ma dégg ci gor gi wax ko ci awdahul masalik fi ta'rif bi hayati wa manaqib cheikh al hadji malik moy kitabul muyassar ci fiqh la téré bo xamné téré bu jafe la won mom la doon wut ñu ne ko dal defe nañ ne Cerno malik saw rek moko fi am mu ñëw diko wut fekk daara ja dundu nitu xam-xam du doyal ci xam-xam mu ñëw dugg ci bir daara ji de nga su mag ñi gende moy bindal xale yi fa tabarakallah ñu gis ci mom fegu gis ci mom mandu gis ci mom ragal yàlla gis ci mom xam-xam gis ci mom yiw mbokk yi wallahi alazim ma ngi leen koy ñaan yiwte lu ko nit jënde jar nako yiwadi lu ko nit jënde jaru mam Ousmane di wor gu yiw góor gu yiwe mu fa wadd nee na woon dootul dugg ci biir néegu sëy waaye comme que lu baax lay wut te lu baax du jeex jikko yu tedd yi mam yi mam fa seetlu ci mam Ousmane biir bu gàtt bi mu nekk ak ñoom ci xam-xam ak ragal yàlla ak njub ak fegu ak maandu la Sayyidatuna Xadija defoon ba yónnee ci Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba yàlla boole leen mu melni dal daal loolu tàbbi na ci xolam ba yàlla dogal li muy dogal bolé ko suñu mam usman radiyallahu anhu mais mbokk yi loolu daf ko sàkku daf ko sàkku ndax ba mu déggé ni mam Cheikh Alxaaji Omar ñëw na xoré fonde di taxawal jihad ba mam alfa may dem mënon na tok ni man jigen la awuma doole awuma borom kër damay taaba taaba rek sama commerce bu ndaw bi ci laa nekk waaye terewul dafa yëkkati lu rëy kado yu mag sër ba rek la ñuy tudd mais am na leneen lu ci ànd sër ba mooy zahir si mais baatin ba waxuñu ko ba mu demee maam Cheikh Alxaaji Omar góoru yàlla gu mag googu nga xam ne taal bu fi tàkk moo ko taal mag ñu baax ñi ñu am ñëpp commencé ko ci maam Cheikh Alxaaji Malik maam Cheikhul Xadim keneen ak keneen ñoom ñëpp maam Cheikh Alxaaji Omar junjoon na seen ñëw wax la mu wax ndenkaane la mu ndenkaane ba yàlla may ko góor gu tedd gii di maam Cheikh Alxaaji Malick radiyallahu mbokk yi kon li ñuy ñaan soxna yu tedd yi bu ngeen demee xëy na mag ñi xaw na ñoo wéy waaye ñàkkul ku ci nekk am nga doom yoo xam ne mi ngi toll ci vingt ans vingt cinq ans nga jéem a góorgóorlu yar ko bu fekkente ni bii mënoo fexe ba la nekkoon ci maam Fawad nekk ci moom ba am Cheikh Alxaaji Malick itam nga fexe donte un pour cent la nga fexe ba def ko ci sa doom ci yiw col col gu baax moytandiku dégg nga téléphone yi moytandiku tablette yi moytandiku réseaux sociaux yi jigéen joo xam ne jàng nga ba am sa ay diplôme mënoo togg mënoo fóot mënoo gérer kër itam kër go dem do fa yàgg doo fa yàgg walbaladu tayibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida kon mbokk yi njabootu mam fa wadd gi bokk ci fondation bi ak ñi ci bokkul ñu nekk fii ak ñi nekk bitim réew ñëpp bokk ci fondation bi rek doyul da nga bokk ak sa jëmm bokk ci ak sa ruux bokk ci ak sa xol nga ne mam fa wadd mii nan la doon dundee d'accord bokkuñu ay jamono bokkuñu période historique bu ñu dund mais danaa jéem roy ci moom mbaax danaa jéem a roy ci moom tabe danaa jéem a roy ci moom dimbale nit ñi alayhi salaatu wasalaam nee na dafa yàlla daf ko won ben nit mu nek ci bir aljana yataqallabu fiha ma ngay wëlbatiku di badar ñi ci bir dëri aljana yi ali salatu wassalam nee na dara may ko ko ludul Papa bazi mbay dafa rombu ben garab garab gi daanu ci aw yoon mu xamne suko su ko fi bàyyee silmaxa mën na fe rombu mu fakastal ko kenn man na ci lor muy def effort di def effort ba yëkkati garab ga dégager ko ba tek ko fële pour kenn bañ a yàqu ci bañ gaañu ci yoon wi loolu la ko yàlla defee muy nitu àjjana alayhi salaatu wasalaam nee na ittaqu naara walaw bi shiqi tamra na ngeen ragal safara donte benn doomu tàndarma ngay yore nga xar ko lekk benn ŋaal wi bi ci des nga jox ko nit bu ëllëgee benn ŋaalu safara bo xal tàndarma boobu nga joxe woon mën naa dox sa digganteeg fa tabarakallahu dem safara kon mbokk yi fondation Mame Fawade bi bi deug deug deug modi di at taawunu ala al birri wa taqwa dimbulenti fexé bañu wara jang jang soxna yi ma ngi len di ñaan bu len ko rus bu len ko rus ñun ñepp nañ deera ci nañ delu ci dara ji ñu jàngi soxna um Kalsuum ngi ni bintu Cheikh al-hajj muhammad al Habib dara la yore di jangale nek mak taxul jàng wàcc la nekk taalibe cheikh te sidina cheikh radiallahu anhu bi muy am sept ans ci la mokkal alquranul karim ci riwaay bi gën a jafe muy riwaayatu warsh nga nekk taalibe cheikh yore sa kurus di kurti kurti doo manqué yoonu tiwaawan ziar bu jot nga ñëw ba noppi yow fatiha bu sell bu set wicc sax mënoo koo jàng salaatul fatiha bu set wicc mënoo koo jàng ci dëgg-dëgg mbokk yi loolu dafa war a jeex شيخ الحاج عبد العزيز نينا سوما سيون دار يب دايره ييب دنج كاي سوتو موي دار بيب دايره بو بوك ت بريزيدان دايره با ولا سيرين با ولا كاغا ياكار دولا جانغال دولا واخ سفرات جيمولا سي يالا بوبام لا لاي وون با يوبو تك كو فني بو سيدو غوي تاغا دا ووتي كو خامني كي دافلاي يوبو سي يالا loolu mooy liggéey maam Cheikh El Hadj Malick leneen amu fi waaw ànd tegu ci yoon jàng jub ba bu ëllëgee bu Cheikh El Hadj Malick geestoo donte moo ñu gën a yaatu ay tànk lu bon bon mu gis ñu ci ginnaawam man ñoo xaar man ñoo xëcc ñu ànd ak moom dem àjjana mbokk yi yàlla nañu ko yàlla boole defal kon bu ñu demee daayira yi nga xam ne ñoo bokk fondation bi surtout daayira fondation bi ñu ci bokk ñëpp macha allah liñ leen di ñaan. pour roy mam fa wad wele moy nañu jëma jàng ñun ñëpp waaw laxdari yu lu bon bon na ñep jàng ma ngi fatlikou mois de mars 1997 at mi nga xamné ci le cheikh al alxaaji abdul aziz génne aduna dañu toggal tapé mune mo ma mune ko si mune demal nga utali ma laxdari yu ma indi mu tambalé ci bop bi di firi di firi nema ni la bako sama baye cheikh al hadji malik don jàngale radiyallahu taala anhu nii la ma ko sama mag ju tedd ja sëriñ Babacar si doon jàngale mu ni ma bu leen ko xeet na ngeen ko def seen ngànnaay fu ngeen jëm na ngeen ànd ak moom kon mbokk yi ma Fawad li mu am ci daara la ko amee li mu am ci alquran la ko amee li mu am ci bëgg xam-xam la ko amee li mu am ci fegu ak nangoo liggéey ak sabab lu nag am lu baax ci la ko amee kon fondation bi ñi ci bokk ñëpp te xam naa ne jigéen ñoo ci ëpp te mbokk yi jigéen su baaxee rek société baax jigéen su baaxee kër baax jigéen su baaxee penc baax moo tax yàlla baaxe ko may ko mam Cheikh El Hadj Malick radiallahu anhu ak ñaan yam ca ñaanlu euh, ku ci am njaboot bëgg njaboot gi tekki nanga jël sa boroom kër def ko moy sa sëriñ soo ko mënee wutal kado sax jox ko ko ne ko ñaanalal njaboot gi donte yéen a leen bokk jur waaye jigéen am na lool mën na ko am ci biir njaboot te góor mënu koo am ndax 75 pour cent jigéen na ko moom 25 pour cent papa ko moom kon jigéen moo ëpple jigéen dafay sagal jëkkëram jigéen dafay bégal jëkkëram jigéen dafay sàkku ngërëmu jëkkëram sunu yaay Aïcha radiyallahu anha nee na jigéen bu boroom këram amoon tab mu jël gémmiñam dëpp ko ci tab bi manqal ko dëtt ji sotti fële raxas gémmiñam du tax mu jox boroom këram xaqam donte loolu kenn ku nekk xam na ne kenn du ko def mais day wane rek boroom kër cër bi mu am ci biir këram ci ma ci teggin waaw waaye nekk ci biir kër gi ndoket bi ngay sol moom ngay yendoo moom ngay fanaanoo moom ngay togge moom ngay taajale sa borom kër añ ah bu yàggee mu sàppi ko ah, yàggee mu sàppi ah, boo koy jox ndox sax danga ko koy sànni waaw ah, loo koy tegal da ko koy tegal ba noppi ne wëlañ dem waaw loolu kenn du ko def ba noppi di am barke waaw lu baax mbokk yi dañ koy sonn dañ koy kaññi waxuñu pour jigéen ñi nekk esclave góor ñi déedéet on ne très loin de ce point là déedéet mais ñu sàkku seen ngërëm ni mam fa wad def ba am cheikh alxaaji malik ginnaaw yàlla cheikh alxaaji malik mo ñu fi bokku daje ñun ñep moo tax cheikh alxaaji mouhamad hadi ne insha allah ma ngi jéxal ya sahi yaa saaxi in jita daaka albaxra gus talaban nayla alyawaqiiti waxqir wayka xiitaana fa qimatu lfalsi duna alxuuti yaa thiqati wa xaalisu durri ma aglaahu athmaana sëriñ haadi nee na radiallahu taala anhu ci occasion bi ñu ngi profité di jaale soxna Aminta Touré doomam bi génn àdduna bu yàggul di jigéen ju baax man xam naa ko jigéen ju yiw foo ko fekk mu ngi muuru waaw colu jullit bu jigéen moom lay sol kàddoom ndànk lay wax jigéen ju yiw euh, jigéen ñi maa ngi leen koy ñaan ku ci daan wax ci kaw na nga fexe ba wàcce sa kàddu di wax ndànk waaw di wax ndànk ku ci daan dox di daw maa ngi lay ñaan nga dox ndànk ndànk ndànk ku ci àndoon ak xadar maa ngi lay ñaan nga dem ci sëriñ boo gën a yaakaar mu ñaanal la yàlla sa xadar wàññeeku jigéen ju ci daan dugg ci détail maa ngi lay ñaan yàlla ci barke mam faa wàddu wele ak barke bisam bi nga bàyyi détail bari na sëy yu yàqu te détail ak jortu lu amul moo ko yàq sëñ di nee na yow sama xarit kaay ma présenté la sama sëriñ Cheikh Al Hadj mu ne géej la de nee na ki gën a ñàkk solo ki gën a ñàkk chance ci géej mooy ki ñëw war a nuur wuti wurusu nuur nga yem rek ci jën yi nee na koy kooku mooy ki gën a ñàkk chance waaw nee na Cheikh Al Hadj Malick boo accès nee na géej la rus nuural loo fay wuti damay wuti wurusu lu lu nga xamne wurus yep mo ci gëna cher waye sànni sa loy wuti jeun ab du jeun da nga ñëw consommer ko legi mu jeex tabarakallah neena Cheikh Alhaji malik li lay li jariñ ci mom du jeunu kesse rus talaba nayl al yawaqiti waa xiiti wax xiir way la ko xamne bu la fa jeun wut jeun rek yobbo neena perte nga fa qiimatul falsi duuna alxuutiya fiqati wa xaalisu durri ma aglaahu athmana nee na wurusu lu lu kenn amul njëgam te Cheikh Alhaji Malick ku ñëw ci moom loolu nga wut kon mbokk yi maa ngi tëj xëy na li ma bëggoon a développé thème bi dëgg-dëgg jekkuwuma ko noonu waaye sama xol jekku na ko li ci sama xol sama làmmiñ mënu ko tudd yëg-yëg bi ma am mënuma ko bind mënuma ko wax ci sopp mam fa wadd ak bépp jigéen bu mel ne moom ci xam boppam ci maandu ci fegu ci njub ak toppatoo boroom këram ba yàlla may ko lim ko may te loolu nag mbokk yi ñun rek moo ñu fi tax a daj bu ñu ëllëgee bu ëllëgee bu tayee bu ñu delloo maa ngi ñaan soxna yi soxna yi laay gën a waxal ndax yéen yéenay boroom kër yi jigéen ñi yàlla xam doy na fa tabarakallahu salaamaaleykum salaamaaleykum allo allo waa maam waaw waaw waaw waaw moom soxna soxna waaw soxna maam Sofi nee na bu ñu naagu waaye yërmande gi am na solo nee na ñu fàttaliku bis boo xam ne bii Cheikh Al Hadj Aziz toog na ay rongoñam di wadd jooy ba ñëpp jaaxle te la ko taxoon di jooy nee na du dara lu dul jaboot gu jigéen gi ñeewante leen ak yërëm leen nee na bokk na ci li daan tax muy ñaan yàlla fan wu gudd moo di banaati njaboot gu jigéen ñi innahunna min ad-di'af لأن دانيو نيو دولي مخافة أن يرين البأس بعدي وأن يشربنا ما أن غير صافي لأن من لما يرقل دباق مالك مو يمو في ألت نجبوت جي مار بنان بوتيت لول لاي باي خيل موتا سمورون غن يوات بوكي جيجين دفا فراجيل نيو نيو دولي أم نيو دولي كي كوتي نخ نيو يوري كر مي جيجين دفا فراجيل موتوخ نيو وار لينا بروتيجي وار لينا آر بو الإسلام دمي بنان جيجين بوي جين نصولو نصولو باخ بوم اكسبوزم بوبوم تي مبدي مي ndax dafa am na ñoo xam ne seen xol yi waaw seen xol yi dafa feebar yàlla nee na am na ci góor ñoo xam ne jigéen romb leen la ñuy bañ moo tax yàlla ne waqar na fii buyutikunna jigéen bu demee ba ñu exposé ko ci mbedd mi publicité bu ñuy def jigéen la ñuy la ñuy génne dënnu neen boppu neen dégg nga lépp nekk ci biti mbokk yi société bu mel noonu su amee tabaarakallaahu pour yàq dafay yomb te loolu tubaab yi moom lañu bëgg ci ñun tubaab yi yal ma yàlla baal yàq nañu seeni réew dañu dem nañoo dem ba dara nekkatul lu bon ci ñoom góor a góor dañuy sëy ci mbedd mi góor a góor dañuy ànd ci palaat dañuy ànd ci train yi ànd ci métro yi ànd ci TGV yi di fóonante te kenn mënu ci dara ñeme woon a laal mbon mbon yooyu nag buñ demee ba tubaab yi bëgg ko indil ci suñu biir réew yi fas yéene yàq suñu njaboot gi luñu am ci alal dañ ko jël ta te bàyyi ñoog mbaax jërëjëf soxna Safi sha allah alhamdulilah jërëjëf si Mari kon mbokk yu kon euh insha allah tabarak wa taala lolu mo doon kàddu yi euh amna ay harakat niswiya yu feñ ci jamono ay mouvement féminin yo xamne ñi ngi am doole lool ci réew mi ñu ngi yàq lu bari la béyk waaw sëñ Ahmad daa nee na soxna si bu toggee ceebu jëm mu neex njóobeen yeeg njaayin yi sal xolle ne soxna si moo mën a togg ceebu jën bi neex na na bàyyi xel mool ba duggoon ci géej gi nappi jën tëmbal gaalam ñetti waxtu ci guddi تلو نك ما دون نكو تفك كتو كتير بجن بنا مودي شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه مول بتم بلون قالم بنا بيجنو موي مانفا وارد ولي بيجن كون دون نبي موي شيخ الحاج عمر الفوتي جرجف لول دي دانا كريزومي وقتان وي جرجف سني احمد دان مبوكي تي راي تجي ان شاء الله amna ay mouvement ay harakat misbiya yoo xam ne ñu ngi feeñ xëy na waxtu yi moo ko dul maye mais mënoon nañu dem ba ci tubaab yi ba ci arab yi nga xam ne demoon nañu sax jàngi ci tubaab bi influence bi tubaab bi am ci ñoom bi ñu ñëwee li njëkk a def moo dina lislaam dafa tardeel jigéen nee nañ lislaam dafa tardeel jigéen point bi njëkk a contre ci lislaam moo di lu tax bu ñuy miiras ne góor ñaar jigéen benn ñu ne loolu dafa war a jeex ci pénc mi góor ak jigéen kiif kiif cinquante cinquante loolu am na ay femmes musulmanes ay féministe yu nekk fii ci biir Sénégal di ko défendre nee nañu lu tax jigéen buy génn lislaam naan ko nanga nga muuru waaw na nga muuru alxijaabu shar'i nee nañ dafay tardeel jigéen dañ ko bàyyi boo ko neexee sol pantalon boo ko neexee sol jiinam bu nexé sol déchiréem bu nexé bàyyi dënnam mu nek ci biti bop bu ñettel bi nenañu li l'islam wax ne bu gor borom kër su génné aduna jigen ji na tëñ ji téméri fan ak fan wers wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa 10 moy 130 jours na jigen ci def istibra toog ba mu jeex su gisee goro mu nee nañ loolu dafay tardeel jigéen su góor génnee àdduna nañ jël soxna si yóbbu ko ci sage-femme bi mu defal ko écho bu fekkente ne dara nekkul ci biir bi bu ko neexee sax ci ëllëg sa bu gisee goro mën naa yéey mbokk yi lii yëpp ay mouvement la yoo xam ne mi ngi ci biir réew mi soo gisee ma koy tudd pour attire seen attention ngeen attirer seen attention njaboot xam ne am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir lislaam bi te lii may wax man kenn net liwuma maa ko dégg ci rajo ci ko doon wax mën naa jaar ci turam mbokk yi ñu ngi leen di baalu xàq bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla dolli sutura Sabah